salaamaaleykum mbokku internetu 24 actu ñu ngi leen di nuyu di bu baax a baax ànd bi ngeen di ànd ak ñun saa su nekk mbégte lay doon saa suñu janoo ak yéen ñu leen dalalaat ci seen beneen numéro entretien tey nag ñuy dalal ki nga xamante ne nii moo di 5 tonnes moom lañ nar a feggoo tey émission bi ma daal di koy bàyyi rek mu daal di nuyoo nuyu naa la. waaw maa lay fay nga ma sant yàlla julli si yéen maa ngi sama ñaari waajur quoi di wax mention spéciale pour dof yi quoi dof yëpp xam waaw di wax àdduna c'est la vie tamit di wax corona bi xam nga mooy loolu rek mu jóge fi waaw c'est la cinq tonnes ma bëggoon a xam kan mooy 5 tonnes. waaw 5 tonnes benn booy la quoi judo 1997 sixième mois troisième jour hôpital Ndamaat 23 et 30 quoi waaw xam nga xam nga ñun moom dañuy judd rek dof quoi kii sax dalal nañu baax daal baax njaay xam ñu jàng di def ay tribal liggéey nañ fi yëpp ay ministre bois ministre mitaali yëpp yëpp jàng naa ko fii laa ko léegi yi 2 jours yi 3 jours yi 4 mois waaw mais saa moom moo ñu jàngal quoi mooy suñu suñu même bada sama booy sama rakk kee gede xam ak ñëpp daal dofi fii su si fer fii ndaamaat laa juddoo fii hôpital ndaamaat 23h30 gii fii nii 1997 hôpital ndaamaat te kon hôpital ndaamaat wala te kon ba waaw foofu laa juddoo. léegi ñu bëggoon a xam lan moo la dugal ci bëre. waa xam dafa am loo xam ne doo de sang la quoi xam nga don de sang boo déggee don de sang li tubaab naan don de buy daw quoi deret comme man aw ma maam buy bëre aw ma nijaay aw ma dara buy bëre mais damaa dem. làmb neex ma ma tàmbal di bëre mbapat affaire yooyu noonu nekkoon cité Médina sama papa après mu dem xam ba bëre bi sama waa famille après mu dem obligé ne ko amandi ah, wax dëgg a seet si ma leen seet si kon loolu tey am na ñoo xam ne ñoo mujj si làmb foofu te amuñu loolu xama tey su ma demee isaat fu ma dem danañ ne a ngi ne xam nga ñëpp ñu ngànk làmb xam ne 5 tonnes kon loolu ceci faire ceci noble ndax xamal tax kenn koy da ngay li doomu aadama looy def lu ne da nga koy gëm soo ko gëmee rek suñu borom mën na la si jàppale ndax àdduna toi moo ne lesala moto tabaski un jour viendra ci ko ne voilà euh, bëgg nañoo xam tamit euh, ñaata combat nga am ak ñaata victoire man set combat la am cinq victoire deux défaites voilà sept combat cinq victoire deux defet mais combat bi moo war a bëri ni moo nekk combat boo xam ne sam comme combat boo xamante ni comme c'est comme combat boo xam ne yaa ba gën a xam àdduna la quoi xam la àdduna la ki may bëri nañ combat bi ñett ñaari revanche la benn man a Massi Mbergane lay doon père wax naa ko keroog benn émission bu ma doon def temps yi jàll benn man a ki ma a bëreel ndax man bàcc seeraas a bëreel ma to dëkk naa ko ne moom nee na bëreetul na làmb ti ko loolu yees kole na man Tafa Gueye 2 laa bëggoon a bëreel moom mu ne ma boo ma ne fay mu ñu bëree léegi man a njaalaax ñu war a bëre damay ñaan xama sa mbokk yëpp ñu jàpp si xam na ma la ñu ubli mobilisé wu ndax nit amul lu ay mbokam eh, man ma yaakaar ne yow da nga yow yaay proposé ki nga bëgg a bëre wala promoteur bi moom moo la koy proposé non man damaa seer man ñoom ñëpp maa leen gën a seer man maay proposé ki ma bëgg a bëreel guddi ñu toll ni man maay tànn adversaire maay fay sama adversaire boobu barke leeru alxuraan a daan man daan naa bolokaas daan naa bu gonaas daan naa dam daan naa aas aas moo ma daan ak yéeri deux ñoo ma daan. léegi sax boo bindee 5 tonnes la fu day ñëw. Euh, ñaar ban écurie nga nekk. man damaa nekkoon écurie Mor Fadam liggéeyante ba euh, ñu bëggoon a xam ba xam euh, ndax ndax ndax mas ngaa am ak benn plaignant ak benn mbër. plaignant mooy règlement compte quoi comme ay xuloo. non man mbëri man mbëri maa ngi wax dëgg ma faan. waaw ñëpp ma faan moom ma faan ndax xam waaw sa si profité sax comme sa sa la occasion ginnaaw waaye sama dëkk ma nuyu leen ko en passage. Lac de ku baax la moom boo koy moom boo amee combat day dalay jàppale ku baax la day man moom wax dëgg ma ko du ko wax lu ñaaw damay mas na maa jëndal borom may ma xaalis invité ma ay ndogu ba taay la. yow guy a nekk star. non <laughs> loolu da nga ko man ma saa maa gën a seer guy gi yéen waay. yow jabaram ngay laaj benn maa ko gën a seer laa la wax mooy yow man gars yi la ñu wër xoolal moom da am na émission mu bëgg ñu def émission man ak moom ma bañ. yow guy gi ma 5 tonnes laa tudd dof loolu ma ki da ray guy 5 tonnes amul am ànd guy gi wala di ko ne. waaye style bi. non c'est pas bon non njëndam la njëndam la njëndam xolam suba ba mu may woo fekk lu jiitu man ma siisu quoi ndax dafa dem bi mu waaj a ngénte fu aw rek ñu ne ko oh, booy 5 tonnes sa mooy sa géwélu juddu quoi fu mu aw ñu ne ko 5 tonnes na ma ngénte li ñu may woo suur ngénte mais ñëw ma waaw. cinq 5 tonnes kan mooy sa idole ci làmb ji. comme koo xam ne dama ko def référence comme di ko dégg di ko di ko kii. Uh-huh. aw ma ko moom. amoo ci mais am naa yi xarit na comme ni ma waxoon ay guy geeg ñeneen ndax jàppale ma si damay jàppale si ay côté yu ban ay côté yu yu yu attente yu yu bien yu normal dama si jàppale. waaw wax dëgg yàlla. Uh-huh. ñu daal dugg tuuti ci actualité wax ci jàngoro ji nga xamante ni moo di coronavirus uh, naka la ko cinq tonnes di dundee. coronavirus moom <laughs> waaw dama yàq lu bari gars activité la yàq ndax. xam nga tamit ñun surtout ñun mbari ndaw nga préparer sa combat ba mu des presque in semaine ñu xëy na euh, euh, ñu joxe da xaw ak d' accord xaw ma accordé la nga comme li dogal bi wàcc si ministère ministère euh, des làmb mooy Matar Ba ñu xëy ñu na làmb yi amatul quoi xam nga loolu. des làmb la waaw mooy Matar Ba Matar xam nga loolu tamit neexul quoi ah yi <laughs> waaw xam nga loolu neexul quoi. ndax bu xama tamit mbër mu ndaw xama nga mobilisé wu yaag say supporter jaa xama dem Gambie préparer sa combat ak yeneen activité xama dem si Mara sa xaalis lépp xëpp ko si ñu xëy rek ne la gaan combat bi renvoyé nañ ko mais man Fer moom xawma fan la jógee ak ku ko fi indi waaye war na ko fee delloo fa mu jógee quoi ndax ñun sësi sénégalais xama ñun dara wóoru ñun dara xajul suñu biir quoi waaw dara xajul suñu biir ñi nga xamante ni sopp nañ la di la seetaan nan nga leen di sensibiliser waaw li ma leen sensibiliser mooy ñuy takk masque di wut alcool ñëpp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 5 ton gis nañ ne tamit làmb ji dafa xaw a sooxe lool lool ndax ni mu amee woon ampleur bu njëkk léegi gis nañ ne dafa xaw a wàññeeku bu baax a baax a baax naka ngeen koy dundee yéen ñi nga xamante ne ay mbër yu ndaw ngeen bëgg cee daa bëgg cee teral seeni waajur waaw loolu moom dëgg la moom xam àdduna moo mel noonu quoi suñ borom day def benn affaire boo xam ne xam nga ñëpp dañ koy dañ koy dañ koy dañ koy jëlandoo mais xam nga tamit am na foo xam ne bu fa toolee rek dafa am ñoo moom xam ne dafa am lu ko waral mooy li ma wax keroog benn émission bu mën a wax waa ji laaj ne ma làmb yéen nu mu demee noonu ma ne ko noonu wax dëgg ñun xëy na ñun am nañ ci kase mais kase ñu ci am enrancé wuñu mais ku ne làmb doxul day fekk sa mbokk da caa teddul xam du ma fen mais bu ma teddul tam am na ñoo xam seen mbokk ñu si tedde xam nga mais ñi ngànk làmb ñoo ñoo ñoo war a téye liggéey bi ñoo ko war a gën a téye xam nga jàppale xam ne dañoo am seeni doom comme père Alioune Sarr xam nga suñu papa la euh, mention spéciale pour moom xam nga père Alioune Sarr maa ngi koy wax man 5 tonnes dof bi xam nga sa doom laa quoi mais ak Matar Ba ñoom ñu gën a ŋànk làmb gën koo jàpp ndax dafa am yoo xamante nii daf moo xaw a yàq làmb xam nga làmb bu njëkk ambiance bi ak coowaloo yi daa am yooyu noonu comme mbër bi xam nga dem dëkkante affaire yooyu noonu danaa neex làmb ndax yow da ngay yàkkamti sax xoolal baala ngay yëkkati trois jours avant géej waaye moom foo jaar dañoo baara fépp ñëpp yaakam di jour bi mais yooyu noonu dañ waaw waaw waaw xam yooyu noonu dafa war a am yaa dégg mais léegi cinq tonnes bu demee bu demee làmbo su jegee adversaire am jege rek meme pas comme li ma la wax léegi ci coronavirus bi 2 mètres ñu ñu ñu ñu ñu bindal ko euh, kasem dañ ciy laal mooy mooy kii euh, kii avertissement. Mm-hmm. c'est pas bon c'est pas bon. mën nañu mën nañu leen mën naa dekk nañ bàyyi mbëri xam nañ daa indi ay bitéelu magee ak affaire yooyu noonu spectacle yi di daw ndax dafa am ñoo xam ne ah, ko ne nga ma moom xam ne moom dox waaye su ma sañoon daal moom mu gën a jàpp si làmb mu gën see jàpp quoi ginnaaw moom la ko ndaw ñi dénk te ñii ñu ngi naan dafee war a jógee ñi naan waru fee jógee ndax jamono jee nemmeeku woon nañ coow lu amoon ci diggante CNG ak arbitre yi naka ah, waaw CNG ak arbitre yi waaw wax waaw loolu moom rafet rafetlu moo ko quoi mais tamit wax dëgg yàlla arbitre li ñu wax fekkee looy wax loolu lañ leen fay dafa ndaw dafa ndaw ndax kenn ku ne li nga li li li li li li li lay li lay jariñ mag mag du fekk si yàlla naa dee quoi yaa ngi dégg mais tamit war nañoo mën a waxtaanaat suñu biir ginnaaw ñoom ñoom ŋànk làmb ak père Matar ba mi nga xam ne moom mooy ministre sport mu jàppale xam nga ñoom ñëpp su Sitor Sitor tamit dafay dañ ko aj nangu licence am xam nga loolu tamit dafa yaakaar làmb fekke ci làmb la yaakaar day metti xam nga man su ma sañoon daal ñu jàppale ñi ñi si làmb ñëpp daal ñu jàppale leen arbitre moom wax dëgg yàlla moom dañ leen war a fay ndax seen liggéey dafa may xamul daal arbitre boo doxal moo gën a manque ndax xamul tax arbitre day ñëw làmb ay ñaari mbër bëre mu def benn site boo xam ne mu xaw a jox kenn victoire site bi leerul te su génnee ay supporter kooku mënuñ koo duma comme ba Marley Marley Marley ki ki signalé site du Marley kooku géejawaay la dëkk kooku da lay wër na jour boobu noonu su ñëwoon géejawaay te doon ñu écrire ba di seen contact. yooyu noonu di am ci diggante mbëri loolu lan moo ko waral. non pour am mbëri amuñu jafe-jafe de xam da nga a am mental normal quoi xam nga la mooy mental normal. mooy yow da nga da nga ñëw isaat pour supporter 5 tonnes am nga droit nga sol t-shirt 5 tonnes nga nekk di nga dëgg tigal loos am nga droit nga yëngal nga zimol loolu yow la yow la engagé quoi ceci faire yaag sa mbër mais bul jéem am leen looy incarné wala looy imposé di ko def loolu c'est pas bon loolu c'est pas bon yow man damay def isaat man du ma bëre da bëre benn bëre war nga ko daan nga di ko toog nga wàcc xool ñu lay def yoo xam ne saa la c'est pas bon baaxul yooyu Sall di baaxul quoi ñun ñëpp xam nga nañu nañu gën a jàppale suñu papa Alioune Sarr tamit mu gën ñoo boot quoi ginnaaw moom mooy suñu papa moom moom lañ jénk affaire yi waaw ñu ngi naan war na fee jógee ñëpp di si wax mais man man mu amul lenn ma si wax si loolu noonu ndax man samay grand frère daf nekk ak samay papa yaa ngi dégg si gën a tuuti si ñu si nekk waaw kerra ba may demee renouveler sama licence wax naa ko loolu noonu man moom aw ma si lu may décidé waaw ndax man mosuñu maa dagg ci làmb sama reliquat day mat sama avance day mat waaw man ma ku dee ak sa bàmmeel mosuñu maa dagg moom mosuñu maa dagg. léegi 5 tonnes ñu daal di wax ci li nga xamante ni moo di homosexualité gis nañ ne mbirum góor jigéen léegi dafa dafa dafa commencé lëmbe ci réew mi naka nga ko jàpp. yow subilaay wa <laughs> <laughs> ah, mais loolu moom du ma ci wax yàlla waaye daal comme fekk am na moom saa boo nit ñi ñu gën a ñu gën a maytu quoi mais dafa xam a dëgg bi dafa toll foo xam ne nit nit ku ni ku ne ak lii la concerné ak ni ngay wutee xaalis quoi mais loolu moom ñun suñu diine bëgg ko waaw suñu waaw culture mooy mooy suñu aada quoi waaw suñu aada bëgg ko tamit xam kon tey ñoom nit ko ne xam nga xam nga am loo xam yow soo koy def def ko fi nga ko war a defee rek yow jafe-jafe nga fay am xam nga moom nee nañ nationalité wuñ ko fii comme si dëkk bi mooy nationalité mooy le valable waaw comme nationalité wuñ ko fii nii yaa kon tey bu ko fi jéem a sax incarné quoi mu lay sonal ndax xam nga xool ku koy def si benn koñ su génne comme da nga gis ay ay pigin wala fenn ku koy koo xam a na sam benn waaye gars yi jàpp nañ ko xam ne ko doon xaw a kii ni géejawaay billahi di ko ci dóor dóor yu kon loolu noonu da lay ne kon ak siséwul ak siséwul suñum réew kon boo koy def rek teel koo limité quoi nga dem fa mu exigé nga defe ko fa waaw képp ku si bëgg a dugg nag moom say boo nga rikkiliwu ci ba set ci wécci mais góor dafa neex quoi daal waaw nekk li nga doon dafa neex trop waaw yaakaaru ne ñàkkum xëy mu metti mais ak bëgg am alal te doo ko liggéey est-ce que du mooy waral yu waaw ñàkkum xëy mu metti waaw dëgg la euh, mais tamit xam nga tamit euh, gis nga doomu aadama chaque jour rek yow li nga tollal da nga ko war a def man 5 ton damay xëy maase bu bee li ma tollal ma lekk ko tëdd sama ngor keneen lim maase li mu tollal mu def loolu tëdd ngoram est-ce que ti ko ne comme tey kenn ko li nga xam ne yow moom moom moom moom nga tollal soo ko def rek jàmm ah wax dëgg yàlla 5 tonnes amutam xëy gis na ko mën a jël minebar su ne 2000 na dem fàcc fàcc lim tollool yaa ngi dégg mais buñ naree xaar état rek day metti quoi day metti mu ngi mel ni comme ñun ñi nga nekk mbër am na man dafa am na sa mbooru mbër yoo xam ne ma la ah, def ma ni loolu lañ moo war a jeex ci dëkk bi kenn ko naa dem nga xëy nga liggéey nga loo am nga xam loolu la yàlla may nga sutur la aussi yaa ngi dégg bañ a xaar dara si état dëgg la moo ñu jiit moo ñu war a jàppale mais da nga war a jàppale sa bopp pare xam nga la waaw ñu gën a ko a gën a fonk liggéey bi gën a gën a kii waaye xëy xëy moom ndaw ñu liggéeyal bari na trop bari na trop 5 tonnes d'accord ci légalisation góor jigéen légalisation mooy lu valable a ah, loolu kay c'est pas bon mooy li ma la comme suñu culture bëgg ko kon kay c'est pas bon mais lool loolu loolu même président sax moom mënu ko valable lal ñu suñ suñu suñu suñu kii bëgg ko suñu suñu suñu nationalité comme suñu dëkk bëgg ko jeex na waaw ah. Euh, naam ne kii couvre fa am na euh, jamono ji réew mi daal di yëngu lool ñëpp di teel a tëdd vingt heures mais teewul tamit ñiy def katu ñaawteef yi ba te ñi ngi di def ndax agression yi ñu ngi koy gis ba ba léegi nii ni ñaa ngi dajji butigu jàmbur di jël lépp naka nga ko gisee waaw loolu xam xam nga ñoom xam nga ñaaw def katu ñaawteef xam na la demee yow ni ngay xëyee sa liggéey nga siy def ay technicien da ci gën a valable ñoom noonu la demee ñoom bu am rey am na pala bu ñu ci teg ñoom ko couvre-feu bi ñu wax day xelu gars yi bu yàgg mais gars yi dañ gën a xama mais daal kuy bañ ñu jël li nga li nga sa alal moom dencal bu rek bu wóor rek nga gën a maytu xama te gën a sens sensibiliser wu waaw sensibiliser wu quoi gën a gën gën a téye sa bopp daal waaw gën a topp couvre-feu bi ko comme couvre-feu bi comme heure boobu gars yi joxe ñi ko man ñu dem tëdd ñi nga xam ne man moo wax dëgg yàlla biir ñeeg ñooyu laay laay gunge moo tax am ku ëmb ko nekk sama koñ fee moo tax kenn du wax dëgg yàlla. waaw ah, da am sa autorisation kon nii. non dañu ko biir kenn du la jàpp. <laughs> waaw daa am ku may gunge fee quoi sama jabar benn xar bu tollu diggante ànd ànd data quoi <laughs> ay jaafle waale ah, buy doxantu yow yaa koy gunge. Ah, waaw que loolu tamit yoon la. waaw c'est raisonnable c'est moi. Hmm. waaw yoon la <laughs> yoon la. jamono ji naka ngay dundee ak euh, sa alimentation naka nga koy dund ndax dégg naa mbëri duñu suur de. ah fii ndimbalu jabar ak xam naa xéwal la quoi ndax wax dëgg yàlla man su yeewoo suñu kër dañ may defal kilo mburu ak soos ak ñaari nen baxal ma lekk ko daal di génn sama ngor suñ kër yaa ngi dégg su ma dem fi am na benn mer bu nekk fi mayaat ma mburu ma ñëw ma jaar kër ñoom sa waaye ma fekk ci lekk daal ñëw fii ñu jënd ma mburu yaa ngi dégg ma daal di ñëw fii toog ci atelier bi nekk fii nii su añ jotee ma añ foofu noonu ci aale su ma añee pare daal dem ci benn place bi añ foofu noonu sama pare du kër baa jib njaay añ su ma dikkee jaar ci mécanicien añ daal dem suñ kër kii du mbaayam fen damay añ daal dem daara jël ma fekk baax na yow li ngay ñaata loolu loolu yëpp ñaata lay toll mu daal damay añ kër ci aale añ ci añ kër Baajib bii nii mooy euh, pesetas yi daal di dem suñ kër añ ba pare daara ja lu ma fekk baax na yenoo sama ngor ba ay ngoon ma yónnee bu ñaari boolu ceeb ci daara ja laayal kii barki Mouhamed daal koy lekk tëdd ak sama ngor léegi daal di nekk sama ngor ba ay boolu timis yooyu noonu njoganal ma daal di njoganal xaar añ xaar su ma reeree ba kii daal di leneen ci après reer bi su may tëdd daal di naan laax 300 tëdd ak sama ngor quoi ba suba yaa ngi Euh, entraînement yi fi bëgg en 100 pour cent doo ko am quoi mais su obligé wu comme mën a baylaat euh, baylaat mi moom laa mujj àndal pour di di di pour pour maintenir sa forme quoi waaw. ma xool waaye combat bi daa yàqu la 3 jours 4 jours ma ñëw fi ah. ay le 22 le 21. waaw instant su si resté ay ay ay 22 jours wala 24 jours ah. waaw lan wax ki nga war a ko war a wax mooy. yàlla dafa waroon dogal ñu bëri la war a bëri la cinq moom amul leen lu ma wax ndax man maa ko fay maa koy siiwal. yaa a siiwal ah oui. Ah, ko teg. barke Serigne Touba ndax man man ku signé man kon naa da ngay siiw ndax ñëpp dañ ko suñu làmb dañ la fay bind. site internet dañ bu ma bu ma interview ndax dañ mi si laaj moo tax du ma bëgg a tudd sax ki muy bëreel ndax dig ndax cat cat daa gaaw ndax làmb ji man maa cat sama bopp yi yi la cinq maa tax ma yàq maa cat sama bopp dama wër média yëpp saa yi xool di waaye moo tax xoolal bi mu amee jaw de dama kii jaw ne ma oh ba catu ko sa bopp barke man maa jël sama bopp te xoolal catu moo gën a bon kenn mënu koo dindi. nga ko doon waajal bu baax a baax. billahi jël média yi saa xool moo loolu comme tag fougue de jeunesse quoi fougue de jeunesse xoolal barke yàlla te combat Massi Mbergane moo tax ma gën see bëgg a génn moom dër bi xam te ñun tamit ay déedéet géejawaay mooy daw suñu yaram doo de sang donte fa lañ wàll yaani ay doo de sang lañ waaw kay ñun saisi faire bawal bawal ay kaw kaw lañ cent pour cent yee te namuñu dara nag barke Mouhamed amul lu ma namu man namu ma dabalaaj fooxutaan ay borom yi xaalis laay ñoom ay jàppale mais ànd ak ñoom mais saisi faire comme di lekk ci daara ji di ci dund barke Serigne Bamba namu ma dara amul ku dëkk ci dëkk ba ma ma ma ma ay yaakaar la fii laa juddoo e mois mais xoolal yaakaaruma kenn barke leeru alxuraan ma moo jënd banque bis jën jënd S9 bu jar 700000 ma yàqu ko di ma jàpp ci activité yu bari jënd ma moto may entraîné ak yeneen ak yeneen man ñoom guy man amul kenn benn mbër boo xamante ni man yaakaar naa si àdduna ak kenn man yëg mooy loolu nañ jàll ci leneen. mbëri mag yi amoo ci kenn koy dem di ko seeti. comme di ko woyaan ak yooyu amul au contraire man maa ngi suñu école barke Mouhamed ay mbër te lii xam nga média la ñu may ñaan xaalis pour de reer kon xam nga kon may ak suñ borom la. xamal lan ngay gëm doomu aadama ngay gëm sa bopp gëm sa bopp dafa am ki soxla mooy li ma la ñun ay bawal bawal lañ ay kaw kaw lañ man xoolal temps ma fa dëggee ñu bari na ñaaxal fa laa dëkk man xoolal su su su añ jotee nii koñ ba koñ ñëpp a may tëbal añ barki Mouhamed cat ba cat boole dañ may wër ñi fa ñoo xam nañ ko te damay añ suñ kër yendoog moom añ sama ngor dem ci pëti mu ma ñaari kilo mburu ma def ci ndambe ak lépp consommation yu normal ak ay ay banaana 1000 francs ak yeneen ak yeneen am ñoo xam ne gay gay jaw ndeysaan moom tamit mention spéciale pour moom quoi damay yenn saa def soog jeudi vendredi 8 fataay 8 fataay loolu ñaar la ñaari suuf sées fataaya kooku jàmbaar la ak cere 600 mais 400 kooku jàmbaar la waaw kon jeex ñu ngi jëm ci weeru koor nañ mu gën a xam ndax da nga woor waaw dinaa woor waaw est-ce que di nga woor yow li ngay ndékki lépp ak li ngay añ est-ce que mën nga woor non man non ren moom dinaa woor ah, non daaw woor naa ñaari fan waaw comme ay yéen doon nelaw ba ngoon jot te boobu sax li tax ma woor damaa yow yem ki sama gars yi mais man moom ren dinaa woor moom ah, comme que kay amatoo combat lépp annulé nañ ko kay xanaa di nga war a mën a waaw maa ngi doon laaj fii am na ay Baye Fall ak affaire yu fi jege ñu ne amu fi waaye xam naa dinaa wor quoi waaw dinaa wor. léegi yow moom gën a xam ndax jàng man damay jàng naa jàng yooyu noonu quoi. ay sem 3 yooyu noonu laa bàyyee <laughs> yow kon yow jàngoo de <laughs> yow jàngoo de ah ban école nga doon jàngee. man benn école Fegane bu nekk fii jàng naa daal musée maa ngi sant sama musée bi tamit di ko remercier xam nga di ko wax mention spéciale moom ak sunu waa école suñu élèves nga sensibiliser ma en français ci coronavirus bi. ma sensibiliser wu mooy comme wax ci nit ñi. waaw kon en français y a pas de parler waaw kon va ici ceci para para para ceci présentation c'est coronavirus tous les tous les waaw léegi maa ngi wax daal sur les tous les tous les tous les sénégalais ceci partagé wu cette concentration les coronavirus kaa di ceci les les les les les les les comme ça ceci c'est regarde tout tout yaa de yaa de fët ndax xam nga quelque yaa fët que lui yaa de fët c'est c'est virus c'est don de sang si si deret kaa après la les les les les les comme ça les comme ça le comme ça les comme ça les coronavirus ndax toi et moi toi et moi c'est c'est c'est coronavirus toi c'est c'est walla c'est toi c'est pas bon kaa kon tous les tous les tous les tous les tous kon c'est une concentration normale c'est c'est c'est c'est poigné c'est laissé c'est toi ça c'est ma c'est ma c'est un seul c'est toi kaa di ceci les corona euh, les pacal c'est bon après tous les tous les tous les tous les tous les ranamanations mooy fi nit ñi nekk c'est assemblement qu'a dit c'est toi ah c'est saisi c'est lié c'est bon waaye y a pas de saisi c'est le poignet c'est pas bon c'est pas bon ndax xam pourquoi c'est pas bon y a des après ceci cor ceci euh, micro là qu'a dit ceci mm, c'est donne c'est donne le comme moi ah c'est c'est le poignet donne qui vire kon c'est pas bon waaw kon kon qu'a dit c'est moi c'est resté tout cette concentration c'est ñeg sa bopp quoi c'est bon waaw léegi lan ngay tàggatoo waaw li may tàggatoo mooy dama kontaan quoi ndax émission boo mës a si àdduna bii moo ma si gën a neex barke Seydina Mohamed émission boo mës a def si àdduna bii moom ma si gën a gën a gën a neex xam nga mu gën ma see neex fi fi fi ma ko defalee la kii tamit sama sëriñu daara la jàngal na ma ah Thierno jàngal na ma daara ba Alane Ndiaye xam nga jàngal na ma ba ay boori walaat jaadloo ah maa ngi sant tamit ma invité démb këram añ maa ngi koy sant di ko gërëm. wër na Seydina Muhammad damaa nekk suñu kër xool ma dem mu jënd ma ñaari kilo mburu booy xool def si lim ci def yaa ngi dégg jënd la ma ay ay fruits ma koy yendoo yendoo sama ngor xaraañ waaw lépp laa lekk ñaari mburu ak def ci ay affaire ay sawaay yu baax muy Xaadim Fay barke Mouhamed moo ak seen jabar jooju noonu ku jigéen kii ndaysaan borom ceeb bu neex bi buur neex xoolal billaahi dem booy xoolal ngan di bool lañ ma tegal maag ceeb bi maag ceeb bi booy ba éliminé ko mais mention spéciale pour ñoom démb xoolal xam naa sax seen xale wallaahi la si suuruñu barke Mohamed mais maa leen kontaan di leen kontaante di leen remercier quoi di sant waa koñ bi yëpp surtout sama waa gaale xama suma yaay ak sama yaay nekk foofu ndax man man sama yaay rek laa dëkkal xama sama yaay samay jabari papa xama ay ñoom Diop Sarr xama ay ñeneen a ñeneen sama yaay xama ay am sama paa boo xam ne dama ko gën a sonal moom mooy Baye Bass ko dama ko sonal sonal sonal ba mooy loolu xam nga di booy ñoom si Abdou tamit xam nga di sant Dof bi xam nga di sant Baylaat ak Daouda borom golf quoi mention spéciale tout le tout le tout le tout le daal si euh, cette rentrée Bawol fii gox la ce drapeau gox bi laay boot ndaamaatu waaw mais Zetoana cette femme là ça c'est remercié ndax pourquoi ça c'est remercié mooy c'est lui ceci ceci jigéen gu am jom te xam nga c'est c'est ñun ceci faire de Sénégal dañu bëgg jigéen gu am jom quoi xam nga yow da ngay dox société bu la neexoon tey moom mun na nekk fii nekk ci leneen di ci dox di di di di di comme di kii ah saay mais yow yow yàlla na la yàlla may euh, jëkkër ju baax wala wala ceci madame sa madame wala waaw c'est madame wala man ma sel kon sa sa sa de saw ramadan après saw ramadan ka di ket doon seet góor yàlla bu baax seet dikk leen doon les premiers cadeaux xam nga après ki doon les premiers cadeaux c'est moi ceci faire après moi ceci rentrer comme sa xew ñëw añal la ma ànda yow mention affaire yooyu noonu dañ ci yàlla na yàlla may jëkkër ju baax xam nga am ay njaboot yu bari te barkeel ci barke Seydina Mohamed suñ borom xam nga sa liggéey mu mu gën ko aggravé wu mu dem si liggéey si kaw a kaw mais dama lay permettre barke Mohamed xoolal tout cuulee ci làmb ji koo soxla wax ma ko da ngay moom émission ndax xamul tax da nga maa defal loo xamante ni xol dafa dafa seet sama xol ndax ñun sasi fer sasi xol bu ma ñëwee laal kii ci daar ji lay fanaan ak gars yi xam nga ak nekk galle affaire yooyu ameex naan ñoom xam nga day neex ay ñoom ba abdu bu sa ñoom suñu baa géwal dof yi xam nga ñi nga xam ne yaay ñoom ma sasi fer quoi après nga dem sa sëriñ ak baa jili mbàkke tamit maa ngi koy sant baa jili mbàkke wur na Mouhamed trois jours a tegal invité ko añ barki leeru alxuraan benn ginaar la ma tegal añ ak ak ak bideelu mooy bideelu kii nu mu ijar mille francs yu am yi nga xam ne si yu data yu kii yooyu oh damay bëgg a dee fàtte naa kii waaye mooy kii mooy boisson ah mooy boisson ijar mille francs tamit am carton bi. Persia Persia voilà Persia la Persia la may la may la la may la may jox waaye xoolal man kese man kese laa de si nekk tëj ma ak sama ngor barke Seydina Mohamed ma maase ci maase ci bee ba pare daal jël yàq tegal ko foofu naan naan Persia yi ma dëkk mu ñaanal ma jox may galaaj na ma demal sangu. barke Serigne Touba maa ngi sant ñëpp ñu waroon dafa man émission nag ñëpp nañ xam ne ma limat ma bii moom su si fer moo tax ma accordé ko bii su si fer ndax yow man ma sel euh, kii ah ma sa man ma sel Maguette yow kontaan naa si yàlla na la yàlla defal jàmm nga santal ma dof yëpp xam nga après ñu dem si gars yi ñu bége leen ndax àdduna c'est la vie quoi ndax tubaab moo ne kaa di c'est le bërët fi nga cette fois fii comme fi nga jógee kon ceci rek regarde toi le derrière ka di après il est parti si kaw da ngay dëjuwaat ci suuf ndax bu concentré fi nga fi nga si ginnaaw rek après boo demee si kaw da ngay daan waat waaw ah, ça c'est beau ça c'est beau cant ak ngërëm ñeel leen ci safoo bi ngeen safoo 24 actu ñu ngi leen di jaajëfal di leen jox dig daje bu ëllëg ak jàmm ci seen beneen entretien ak yeneen i invité incha allah.